ci mashaariqil ardi wa magharibiha ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam xam ngeen ne euh, tey jii la alxalifa al aam li taif al muridiya al cheikh mohamadul muntaqa ibnu cheikh mohamadul bachir ayadahu llahu wa nasarahu wa xafizahu tey jii la njëkk a yëkkati kàddoom jëme ko ci jullit yépp jëme ko ci réew mépp waaye jëme ko ci taalib yi yëpp eh, xam ngeen ni dégg ngeen li mu wax eh, réew mépp tey jii dégg nañu kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci làmmiñam yaakaar naa ne ñëpp déglu nañ ko waaye nag gannaaw àdduna si dafa yaatu te làmmiñ yi wuute mu jàpp ne moom àdduna sépp ko tax di wax ndax ñépp lu fi nekkal mu bëgg nag ñu wax ko ci làmmiñ yëpp rawatina làmmiñ wi nga xam ne mooy luxatul quraan mu ni al luxal arabiya e, ni ngeen ko déggee mu wax ko wax ne gannaaw boo xamee ne bind nañ ko ba noppi dana dana digle ñu tasaare ko dana digle ñu tasaare ko ba ñëpp jot ci moo waral kii nekk ci sama ndeyjoor di sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne sëtu maam Mor Jaara mi nga xam ne mook Seexul Xadim ñoo bokk lépp doon koo xam ne boroom xam-xam la sëriñ bee ko yar sëriñ bi la nekkal ca ngoneem ba nii mu toll nii mu nekk ak sëriñ bi mosula taxalikook moom ci benn waxtu di ko féete ci wax mbir yu bari moo nekk ci sama ndeyjoor nii sëriñ seex Mbacke mi nga xam ne doomam la moom itam du rek doomi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye nag dafa doon jëmm joo xam ne it ku Cheikh Muntaxa yar la jaarale ko ci jaar-jaar yu bari euh, ba tey jii mu bokk ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi saytu mbirum xam-xam fii ci biir Touba daara Cheikh Mouhamadul Muntaxa ji nga xam ne moo nekk fii ci biir dëkk bi moom mii mooy ki nga xam ne moo ko jiite moo koy taxaw moo koy toppatoo kon moom itam moo nekk nii ci sama càmmoñ euh, sëriñ bii itam li ma ci waxoon moom jàngalekat la imaam waaw jumaa yi Cheikh Mouhamadou Mountakha ji nekk fii ci jànnatul Mawa wala defe na foofu daalul minam moom mooy imaam bi moom ci boppam ba noppi nag boole kook nekk sëñ daara di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam ak seen dongo bii nga xam ne moo jàkkaarloog yéen Euh, dañuy jàng discours bi ci ni ko sëriñ bi defee ci arab bu ñu noppee ñu jéem ko tekki ci wolof yal na ci yàlla dimbale ba nu man koo matale ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee ba mu nekk loo xam ne dina jëriñ mboolem jullit yëpp waaye dana jëriñ mboolem taalibe yëpp waaye dana jëriñ réew mépp de innahu samiun mujib bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wattamkin ayyuha almuslimuna fi mashariqi alardi wa magharibiha ayyuha almuwatinuna alsenegaliyun أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum almuhtadun faqad ibtalaana allahu biraxiili alamin jalilin afna umrahu kullaha fi alcibaadati walxidmati wa fi tawxiidi sufuufi almuslimina wa binaai buyuuti illahi wa cimaaratihi faqad kaana eh, alcheikh sidi almuxtaar radiallahu anhu masalan yuxtada bihi fi zuhdi walcibaadati walxazmi walcazimati wa fi linfaaqi fi sabilillahi wa musaacadati alfuqaraai walmasakin wa musaacadati xujjaaji beytillahi alxaram wa takafuli bi jamici lawaazimihim fa ucazzi nafsi wa jamici alumma ala raxiili hada alcheikh aljalil wa nas'alu allaha jalla wa ala an yarfaa darajatahu fi illiyin alladina ancama allahu alayhim min annabiyina walsiddiqina walshuhadaai walsaalihina wa xasna ulaika rafiqa wa an yujziyahu wa an yujziyahu xayra aljaza an almuridina walmuslimina wa an cibaadillahi ajmacin wa bacd fa inni atawajjahu bilshukri waltaqdiri ila ixwaani almuslimina cumuman wa ila ixwaani almuridina xusuusan wa uridu fi hada almaqam an atawajjaha bi kalimatin wajiza ila ixwaani min ali albayt alqadimi wa ila almuridin wa ila alqiyadat aldiniya wa ila jamic almuwatinina fi alsenegal wa asalu allaha taala alcawna walsadaada waltawfiq lima yuxibu wa yarda fi kulli xatawatina wa fi kulli xarakaatina wa sakanatina qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin laa shariika lahu wa bidaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin sadaqa llaahu al-aziim risaala muwajjaha ilaa aali l-bayti l-qadiimi wa ammaa n-nuqtatu l-uulaa fi haaza l-xitaab فموجهة إلى الأسرة من آل البيت القديم فأقول لكم بعد قبول البيعة منكم إني أفهم جيدا مغزى هذه البيعة wa ma fiha min rumuzin wa dalalat wa وأعي تماما ما يتطلب ذلك مني من تحمل الأمانات والمسؤوليات الجسام أمام الله وأمام الشيخ الخديم رضي الله عنه وأمام العالم أجمع وإن هذه المهمة مهمتكم وإن هذا المقام الذي أنا فيه اليوم يمكن أن يكون فيه كل منكم فأرجو أن أكون على مستوى تطلعاتكم wa asalullaha taala an yuinani ala taxamuliha wa adaiha kama yanbagi innahu samiun mujibu daawaat wa uridu huna an uakkida muahadati lakum amaam allah wa amaam alaalam ala tajdidi alahd walazima ala muwasalati ala muwasalati alamal fi xidmati cheikh alxadim radiallahu anhu walamal maakum bi mabdai shura fi jamii al umuur kama amarana allahu bihi fi alquran wa amruhum shura baynahum wa atlubu minkum an takunu shuhadaa li amaam allahi ala al ahdi alladi axastuhu amaamakum wa an natafaana fi xidmati alcheikh alqadim radiallahu anhu wa an nabdula kulla ma fi wuscina li taxqiqi almasaalix wa dari almafasid fi umuuri aldiini waldunya insha allah risaala muwajjaha ila ila almuridina umuman wa ama risalatu thania fa uwajjuha ila ixwaani almuridina bi shaklin xaas wa uwakkidu fiha ala wujubi ixlaasi alcamali lillahi waxdahu bila sharikin amalan bi qawlihi taala wa ma umiru illa li yacbudu allaha muxlisina lahu ddiina xunafa wa yuqimu alsalaa wa yuutu alzaka wa dalika addiinu alqayim fal ixlaasu fal ixlaasu jawharu dacwati cheikhina alxadim radiyallahu anhu wa lubbu tariqatihi ltajdidiya kama qaal wasfu lmuridi tarkuhu liraada li wajhi man yafcalu ma araada man lam yurid cheyan siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu fa min huna wajaba alayna jamian tajdidu iradatina bilixlaasi lillahi waxdahu bila sharikin fi nniyaat wal aqwaal wal afcaal wal axwaal wa taxarri mardaatihi taala wa mardaati cheikhina alqadim radiallahu anhu fi kulli xarakaatina wa sakanaatina wa aqaaidina wa aqwaalina wa afcaalina wa axwaalina wa kullaha zaahiran wa baatinan iz al-muriidu laa yuriidu abadan xayra ridaa ar-rahmaani xaysu qasada wa yajib an najtahida fi ixlaasi al-amali lillaahi wa muraaqabatihi taala fi dawaaficinaa wa fi niyaatinaa والترفع عن الجري وراء المصالح الشخصية الفردية الضيقة التافهة والزائلة وأن نحاول دائما جمع الهمة على على الله تعالى والإقبال عليه بالكلية والارتقال لنيل ما عنده ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن fa la nuxyiyannahu xayaatan tayiba wa la najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun sadaqa allahu alazim wa hada ma arshadana ilayhi alcheikh alqadim xiina qaal yaa ayuha alnabilu dac maa yanfadu wabgi munan fi abadin laa yanfadu hada qawlu cheikh alqadim wa bi hada faqat yataxaqaqu fiina macna aliraada الصادقة والهمة العالية التي دعا إليها الشيخ وربى عليها أصحابه ومريديه الأوائل عليهم رضوان الله تعالى في كل وقت وحين وعليه فإني أذكركم بالدور الريادي الذي قام به, به, به آباؤكم وأجدادكم رضي الله عنهم في قيام طريق الشيخ القديم رضوان الله عليه في نشر دعوته وإني أدعوكم إلى متابعة العمل alladi badaahu badaahu al ajdaad wal aba bi muhimmatin tumaasilu himamahum aw tuqaaribuha wal taalamu annakum lastum gurabaa fi l amr bal shuraka risala muwajjaha ila ahali tuuba xusuusan wa ama risala saalisa fa muwajjahatun ila ahali madinati tuuba almahrusa alladina akramahum allahu bi mujaawarati cheikh alqadim radi allahu anhu wa man yazurunaha wa usikum fiihi